bés bi de moom dañ koo fonk lool jox ko cëram bu baax a baax di sant yàlla di sant sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér di sant sëñ Gumba Sall moom itamit di ko ñaanal yàlla yokk leeram ñu ci njiital Cheikh Issa Nger ñu naan ko Baye Nger muy ku baax ku jiite gone nag ku yaatu ku yaatale ku bëgg lu baax lool nag tey wéy ci ndigal ànd koog ñoom sëñ Daalu Diouf ak Modou Nger ñoo mag gis nga xale yi nii xale daayira bi ñoom ñëpp takku fas jom am jom lool daan seen doole fonk daayira bi fonk boobëreel tey ñaanal señ Mbaye Sall yàlla na fi yàgg te wér ay waa këram yëpp ba ci sëñ Dame Diop mii muy xale yu baax yoo xam ne ba ma xamante ñoom yàgg nañ te dara ñaawut nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla fii boobëri moom sant ngërëm rek la ñuy def tey ñaan xéewal gi saawan baawan tey bëgg it ñun ñi nga xam ne ñooy association jaune bi bii fekk ci penk boobërin ci sanc yi ñu baaxee ñu ci courant bi ñu mën cee dollee gis suñ bopp bu baax ndax ñun boobu ren ñor nañu torop waaye ñun ñoo féete ci sanc yi tey bëgg nag sëñ bi doon lañu ay xéew ñu benn yoon gisuñ ci seen bopp benn yoon nag defuñu dara ngistal sëñ bi rek moo leen ñor ak liggéey bi di leen ñaanal rek yàlla nañ dund ba seeni doom amee ko tey wax nag euh, association bi taxaw fii tey ci jàppale daayira bii di waa kër Baye ñoom daal seen wax lépp mooy ñu dolli koo dimbale xale yi xale jàmbaar lañ torop nañ leen dolli ñu am ay liggéey gën a mën a suqali sanc Bobarine dolli ñu ay yoon dolli ñu ay ay ay courant courant bi fii la yem ci pencum Bobarine sanc Bobarine amaguñ courant ndox me doyul yoon wi doyut jeunesse baa ngi ne taxaw nangoo liggéey am jom mais amuñu liggéey amuñu kenn ku leen jàppale te nag lu ñu woote fii ñoo ci mën lu ñu woote ñoo ciy jiitu lu sëñ Mbay Sall woote ci xolli bisaab bi ci liggéey sëñ bi ci màggal gi xale sanc yi yow la leer na yow ci doomi Boobareen nga bokk yow sëñ daam mm-hmm. mais na la leer na xale sanc yi li ñuy jëf fii doomi Boobareen yi defuñ ko kon nag nañ ñu dimbale xale yi am liggéey mm-hmm. am ay pièces d'identité amu yoon mm-hmm. amu ndox suñ ko defee suñ lépp baax na waaw macha allah depuis soo bi ñu ba léegi ñu ngi ci waañ wi gars yëpp ñoo jàpp liggéey bi dama gën a rafete kenn ku nekk da nga bàyyi sa yit ñoo jàpp si magal gi di dox di di di xool fa mu jekk nga daal fay jaar toppatoo liggéey bi ba na mu seetloo nga ñu lekk ba rekk taxaw leen la ñu lekk ba rekk ñu taral leen waaw ndax màgg moom dañoo amul lu moom dafa riis ñun lool macha allah màggal gi moom ndox mi macha allah doy na sëkk te ndaw ñi itam macha allah taxawaay bi ñu taxaw moom macha allah taxaw nañ taxawaay bu rafet fañ war a taxaw lañ taxaw dox nañ leen dox ndigal rek lañu nidu daal ñoom daal lu ñu def dañ leen joxoon ndigal waaye lépp leen jox ndigal moom dañ si daal def ba jax tàkk wax dëgg dara dara waaw man ndax wax dëgg moom waañ moom kon depuis yàgg na mhm. parce que man moom lu mu gàtt gàtt moom am naa 40 mhm. te dama juddu fekk ko fi kon lu yàgg la boobaa léegi yaa ngi ci wàññi daal boobaa ñu ngi waaw di doxal nan ngeen ko waajalee ak euh, euh, moom sa at mu jot dañu gën di yokku at mu jot dañu gën dañu gën a évoluer gën dox mhm. waaw parce que boo dee xool daaw lañ defoon ren dañ ko dubalte dafa gën a yokku parce que mbooloo moo dayu mbooloo maanaam moo toll noonu waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax leen siyaar di jiital ci bi ak siyaar bi sang bu tedd bi Cheikh Mamadou Muntaxa di ko mu yàgg fi lool te wér naka noonu di ko ñaanal sëriñ Amdi xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi ko ngërëmal sëriñ bi naka noonu it di ko ñaanal su yore kàddu yoon wi muy Cheikh Mamadou Basir moom sëriñ Abdul Xaadir di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te wér ba mu yéenee liggéeyal maamam te ànd ko Seex Mamadul Muntaxa suñu borom kàttanal ko ba mu def ko ni mu ko bëggee ñun nag ñuy yëkkati kàddu ci turu suñu kilifa suñu waajur alaaji Mbay Sàll di chef du village Touba Bawëral alaaji Mbay Sàll di président comité départemental bu croix Mbàkke alaaji Mbay Sàll di conseil municipal ci mairie bu Touba moom it kàddoom di kàddu sëriñ Aliou Sall mi nga xam ne mooy xalifa maam Gumba Sall tey ci kaw suuf mi ngi nii toog ci jotaay bi di ko ñaanal mu yàgg ci loolu te wér Alaaji Mbay Sall wax ne nañu jottali ay kàddu yu cant rek ndax guddi na te màggal gi bañ ko tàmbalee waaj ba léegi fépp fu mbokk nekk fu xarit nekk fu dëkkandoo nekk fu taalube nekk amatul jàmm ngir bëgg bis bi boroom amee ko ni mu ko bëggee kon bu ñu egsee ci cappaandaw gi mooy waxtu wi faw mu yëkkati ay kàddu yu cant ndax kilifa yi dañ koo jox kàddu mu jiite dëkk bi jiite mbooloo mi kon mënut ñàkk wax yëkkati kàddu sant ñi nga xam ne doon nañu jàpp ci liggéey bi daa mel ni nag ko jar ndax sëriñ Muudu Mbay Njaay nga xam ne ci kër dëkk bi mu yëkkatee kàddu dafa mel ni ñi nga xam ne ñoom lañ war a tudd ñi ci ëpp tudd na leen donte duñ mën a matal alaaji Mbay Sàll wax ne mu ngi jéggalu ñu ci des ñu xam ne lim matal moo yombul ni nga xam ne noonu la ko dale woon rek ci communiqué yi mu amoon yéene fu mbokk nekk fu xarit nekk fu taalibe nekk fu soppe nekk mu tudd la ci rajo yi ba nga xam ne mbir mi ci nga bokk tam mel ni daj bi yombutoon ne loolu rek moo koy dalaat ci cérémonie bii ba nga xam ne ñim yéene tudd ñëpp du mën a tudd seen tur waaye nag am na kilifa yooyu bu ñi ci des daan leen mën a yóbbaale ndax mbir moom boo ko moomalee sa bopp buñ la ci tudd ci nga xam ne si mbiram bopp la nee na loolu rek moo a tudd gi mënta daj mais kon képp koo xam ne kilifa nga ko bokk ci liggéey bi mu war nga tudd saw tur te eggu ca rek nee na ñu la bu baax te xam ne daf laa boole ci boppam boole ci biir rek loolu moo tax eggu ca nga xam ne dañoo sonn ci màggal bi rawatina jàngkati alquran yi nga xam ne noppalu wuñ guddi noppalu wuñ bëccëg te lépp loo xam ne ndigal la lu jóge ci Seex Abdul Muntaxa jëm si ci dëkk bi ci njàngoom alxuraan kenn du leen ci jiitu te li ci ëpp fii lañ koy defee nee na mi ngi leen di jottali ak bu baax ndax borom bis bi dara gën a ko woon alxuraan nee na noonu lay sante jàngkati xasida yi ndax ci suba ba léegi dëkk bi mi ngi dit te xasida kese lañ fi dégg kon ñi koy jàng it nee na ñu féete woo ko ba noppi di sagoo dëkk bi nee na mi ngi leen di jottali ak bu baax a baax nee na mu ngi sant it nag leen mboolem dayri ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko biñu jàppee bis bi ba léegi noppaluwuñ tey ñu yenduwaat ci naaj wi ngir bëgg lépp jaar ci yoon neen mi leen di sant bu baax di sant kuréel yi fi teew yëpp suñ Mudu Mbay Jaay wax na nee na di sant jëwriñ ji nga xam ne nag dafa bokk ci kër gi te yemalewul dara ak màggal gi muy sëriñ Xaadim Jaay ñu doon def waxtaan bi bokk ci sëriñ Gumba ba noppi nag yàlla may ko xam-xam mu am ak oyof ba noppi bëgg dëkk bi ba tax na waxtu wu bis bi ñëwee du jar sax ñu di ko ko yëgal xam na li ciy wàllam bu ñëwee da ka def ba mat sëkk Bambey nee na mi ngi sant bu baax doo ci mbiram boppam la it nag bu ko neexoon tey ak jamono ji ni mu xatee ku nekk ñu soxla ko fa mën naa am duñ ko gis nee na kon koy jottali ak ko ñaanal suñu borom mu may ko ngërëmal sëriñ bi nee na nag mi ngi sant bu baax a baax sang bu tedd bi nga xam ne ah daf fee yabal jëwrinam mu toog nii mu sëriñ aboo mu mu Cheikh Mamadou taxaa moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne ku tudd ba bëral sa xel dem ci sëriñ Fàllu te loolu doon lu yàgg loo xam ne diggante Serigne Fallou ak Maam Gumba la woon ndax mag ñi comme niñ ko daan faral di nettalee ci waxtu wu ne bi ñuy gas carrière bi ci ndox Serigne Fallou daan fa faral di dem te amoon xemem teefu di jaar bëbëral di gis ak Serigne ma Gumba di jàll ndox kon loolee kaddu yooyee jéegoom yooyee nga xam ne daf ko doon barkeeloo te mu doon jël bi yépp di leen wax ne nañu dem di siyaare ci Cheikh Mamadou Fadal seen bu masaa taw ba mu yàgg mu ne rooseel leen ma penc mi ngir bëgg poussière bi duutu jóg buñ ko roosee diir bu gàtt ñu gis Serigne Fallou ñëw communication boobu ñu amoon ci seen diggante te du téléphone du ab lettre nee na rek mooy jéego Cheikh Mamadou Mourtala lool moo loolu mooy jéego Serigne mii te ku ne xam na ne Serigne Serigne Mourtala tey Serigne Abdoul Khadir ak bisam bii ah fu mu ne fu nekk rek foofu da koo ñor waaye yitte téye na kon bu fi yem ne xam na fi ko dëkk bi toll xam na fi ko taalibe yi toll kon Serigne bi mi ngi sant bu baax di sant Serigne Mourtala bu baax. dina yóbbante cantu taalibe yëpp dina yóbbante cantu wàcceel leen yëpp dina yóbbante cantu sëriñ njabootu sëriñ ma gumba sàll ñoo xam ne seen xol sedd na ci ne nga ni Seex xam ne jàpp nañ ci biir liggéey mi ngi sant mbokki boppam yi nga xam ne dañ koo jox seen bopp jox ko seen alal lu mu nekk ñu ànd ci ak moom muy ay doomi baayam muy ay waajuram yi nga xam ne ñoo ko jiital muy ay rakam ak i jarbaatam nee di sant mbokki dëkkandoo yi nga xam ne dañoo bàyyi seen suufu su maam suñu borom séddee leen Touba Bogoral ñu ànd ak seen délégué de quartier topp ci ginnaawam di liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ñëpp mi ngi leen di sant nee na ngi leen di xamal nit ne dëkk bi moom nañ ci rafet njort bu baax ndax ndaxte kilifa yi ko war a taxaw bàyyi nañ xel dëkk bi te lépp lu fi war dañu ko fi indi ndax forage bii ñuy gas te noppeegut biñ koy tàmbali ñu baree bari ci dëkk bi xamuñu woon ne mën naa amee loolu kon xéngalu Serigne Touba gi moom fu mu toll mi ngi wàllangaan di bi ni mu lay continuer ba nee na kon nañu dalal xel yi te santaat sëriñ bi te fas sax ci ndigal te moo ko yi nim ñu ko daan ba nañ di ko sant ne ko bëbëral dal gi fa am ak ni ñu déggee ndigalul sëriñ bi bariwul village yoo xam ne amee nañ ko noonu ne loolu nañ ci gën a sax nañ ci gën a dollee góorgóorlu ndaxte kat lu waay def boppam nee na loolu daal ñu leen ci gën a soññ bu baax di ci boppam di ci soññ bi ñëpp ñu fas yéene sax ci ndigal amoote di ko tere yi ndax ñu dajee ngërëmal sëriñ bi Baye Mbaye Sall nag nee na ginnaaw sëriñ bi daa toog te waxtu guddi na duñ mën a guddal kàddu yi dañuy jox kàddu yi sëriñ bi nee na xolam sedd na xolop Mame Bada ak njaboot gi ñëpp seen xol sedd na guy ni ngeen taxawoo màggal gi lépp rafet na yàlla nañ ko fekk ay déwén yu ñu dugg suñu borom eggale ko te sëriñ bi nga ñaanal bu baax baax suñu forage bi mu ci jàmm te mu neex ñu mën cee ndax boo ko ñaanee ci barke bis bi am yaakaar nawet bi nga ñaanal ko Baye Mbaye nee ngi sant journaliste yi di sant waa Croix-Rouge donte moo leen jiite di sant waa hôpital bi ci seen taxawaay nee na mi ngi ñaan suñu borom ñu fekk fi ay at yu bari te lépp loo xam ne waaye ñaan na ko fi yàlla na ko suñu borom nangu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi baridwan wa tabiin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din ginnaaw bi ñu sant yàlla duñ ci muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi doon yeesal suñu gubbal sëriñ Tuubaa ñu ngi nuyu mboolem suñu mbokk taalibe yi nga xam ne moom la ñu fekk ci jotaay bi maa ngi yëkkati ay kàddu ndigal yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ibn Abdoul Fadal mu noppi lool ci wutu ko ci jotaay bi waaye nag day ndigal loo xam ne mënta ñàkk sëñ Tuubaa dafa waxoon ne laa taf'aluu shay'an bi ghayri idni fa'l-idnu sa'atun fi hablil muslimin ba leen gi jëf dañu tegul ci ndigal te dina yàlla daw moo dina tegul ci ndigal ñoom sëñ Mbaye Sall ak mboolem suñu mbokku bopp ñi nga xam ne moom ñoo leen bokk tey sëñ xarit ñoo leen ziar di la bëggee bu baax a baax xam naa waxtu xam na waaye dama yeesal ndigalu sama bu mu baax di sant yàlla bu baax itam ci teew gi ñu teew ñu tey ndax ku xool jotaay bi xam ne jotaay bi gën a jotaay fàttaliku la jotaay bi ñaan lu ci nekk rek suñu borom daf koo tënk ci alxuraan dafa wax ne wa dakkir fa inna dikra tanfa'u mu'minin daneen fàttaliku ndax fàttaliku da jëriñ ak jullit Muhammad sallallahu taala wa sallam wax ne inda dikri saalihiin tanzilu rahma fépp fu ñu fàttaliku waa ju baax rek jëriñ naa yàlla dafa ñaan li topp itam mooy ñaan ci boobu muy asali lakum ñaan la may leen suñu tubaab wax ne in du'a yanfa'u man fi quburi wa yanfa'u al-hayya wa yujibul ujub ñaan dara jëriñ ko faatu dara jëriñ ko jumla wala tey tiyaaba li ci topp itam moo jotaay cant la suñu borom bi ñu yemal daawul daf na amalu ala daawul shukran waaye askurkum su ngeen ma sant ma sant leen te ku sant ku ne da nga xaar mooy fàtte wala takunu kalladina masullaha wa ansahum anfusahum kon ñoo barab bu tedd bii nga barab bu sëriñ mu am ku xam jotaay bi xam ne ñaari man muy way jur Cheikh Abdou Mokhtar moom Cheikh Abdou Fadal bi nga xam ne moom yebal fii xam Cheikh Abdou Fadal ak dëkk bi itam da nga xam ne jotaay bi jotaay bi barkeelu la jotaay bi gënal la waaye dëkk bi itam dëkk barkeelu la dëkk dëkk gënal la loolu moo waral Cheikh Abdou Mokhtar saa su ne mu ngi sol ay dàllam ñëw di nemmeeku si barab bi di fekk sëriñ day sàll waaye di fekk mboolem mag ñi nga xam ne ñoom ñoo si jotaay bi kon daal sëriñ bi nee na ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara xam naa waxtu xat rek moo ko xaw a tënk waaye moom moo waroon na solal boppam aw dàll comme ni ma ko daan defee ñëw si barab bi ñaanal leen waaye sàkk ci yéen la ñaan ndax ku dem si barab bu baax ndax moom daal saa rufaan dafa wax ne inda dikri saalihiina tanzilu rahma képp ku dem ci jotaay bu baax rek suñu borom dana fa wàcce ay ngëneel yoo xam ne ku ci tàllal say wax rek dañ ci dañ ci mën a jot jotaay bi suñ tubaa daa waxal suñ masamba ba yàgg mu man de mos naa laaj suñu borom ne ko dafa am xam ne dañoo wékku ci man yaakaar ma àddina ak ma bëggoon nga digal ma digal loo xam ne dama ñu koy digal ñu di ko jëfandikoo dañu bàyyi ko làq sa yaram yow suñu borom suñu borom ne mu ko laaj suñu tubaab ne mu ko laajee suñu borom suñu borom ne tekk bu ma ne borom koy fàtte mën a fàtte nee na ma dellu laajati ko yoon a ñaareel suñu borom ne tekk bu ma ne borom koy fàtte mën a fàtte nee na ma dellu laajati ko yoon ñetteel ba yàgg suñu borom ne ko xanaa fu ñu toll bi la waxtaane ne ko fépp fu ñu toll bi la waxtaane de danaa leen tiim ak sama taw ngeen yooyu di leen ko dox fii bàyyi borom bi itam ci loolu la bokk dama sëñ bi daanaka gis nañ baax ci kàddu gi di dégg nga xam ne suñu mbokk yi la wala ñu dégg nga xam ne sant bu baax di sant bu baax Sëriñ eh, Mountakha Mbacké xalifa général mm-hmm. gi sax màggal gi ren boo gisee at mu jotaa ndawam toog mbaa doomam toog daaw sëñ bas moom la fi yebaloo ren nag bi màggal gi jub dafa taseeg sëñ bi génn taseet it sëñ bas moom it nga xam ne moom it moom la fi sëñ bi daan yebal mm, fekk mu nekk ne woon bay doog a ñëw loolu moo tax mm, moo tax euh, xalifa général de Mouride ñu fi daa teewal jotuñ fee teew du ci du ci moom ci ñun la ak nu jamono bi doxe moo tax waaye yëgal nañ ko ko yëgal nañ ko Sëriñ Bass am Sëriñ Abdou Khadir nañ ko ko xam na fi jamono bi toll kilifa yu bari bari teew nañ fi ñu leen sant leen gërëm bisub bi nag bisub Maam Gumba Sàll la di ko màggal at mu ne muy màggal goo xam ne dañoo fàttali ko rek fekk fi màggal bi muy dox ba agsi ba yàlla dogal mu agsi mu agsi ci ñun kon ñu ngi sant mboole mbooloo mi nga xam ne teew nañ fi ndax bis bi ñëpp ñu leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan ñu fekke at ko ak jàmm kenn ko ne lépp lu mu fi siyaaga lu mu fi ñaan rek yàlla na ko ko sunu borom yàlla na ko nangu te sant yi mbooloo ñu fi teew ñëpp kuñ tudd kuñ tudd ñu sant la gërëm la muy jigéen ñi ak gone yi nga xam ne ñoom ñoo ame woon afeeri baas yeeg afeeri toppto beeg dalal gan yeeg yépp ñu ko amna ñu nga xam na ñoo ko ame woon ñing leen di sant bu baax dileen gërëm dileen dileen dileen ñaanal di santit mag ñi nga xam na ñoomitam ñoomi ñoo nekk ci kanam ci bàyyi ñu lépp ñing leen di sant bu baax dileen leen gërëm bu baax daal euh, maa ngi leen di gërëm waaw di ko mooy ba mu jógee sëriñ Tuuba ci Ceen di ñibbi si Mbàkke booba ndax sëñ bi booba la ko ne woon demal ci bokk yi te booba bokk yaa ngi Mbàkke ba mu fa jógee ci ci yoon ci la dogal màggal gi ñuy màggal bi mu agsee ci Mbàkke it bi mu fi dalee nag yàlla def ñaan gu nangu moom ñaan gu nangu moom dafay yomb xam bi mu fi agsee Mbàkke daal fi ak ak bokkam fi la fekki bokkam waaye dañ fee bàyyi nañ fee bàyyi ay bokkam ñëw jébbalu ci moom kon loole mm, te wóoxu kenn ne kaay jébbalu kenn ku ne la andi yaa ko xamal sa bopp defal ko sa bopp ba nga xam ne yëngu bi mu ngi bëgg a ci mbàkke ci booba it am na kilifa gum fi dendal boo xam ne it mm, euh, mu nekk fi di fi yëngu mel na ne mu dem senen da koy gënal mu ñëw fii ci boobawel sanc fi bi mu fiy nag booba ab gott la bu xam ne nekkutoon suuf soo xam ne kenn teg na ci loxo moo ko sanc ànd ko taalibeem ñu goor ko booba ay pëlal ñoo fi newoon yoo xam ne lañ wuufoon ñoo ko moom loola mu bàyyee leen ko gëjjab gëj lesam lesam def ko ay toolam nekk fii ci taalibeem di di bay wax nañu am fiit ci jamono yooyu it am nañu demoon ba fa sëñ bu mag bi ci njaaweem wax ko ko dañ ko ko waxee it wax ko mbiri sëñ gumba mu leen kooka day bàyyi leen ko foofa taal euh, taal bam taal day kin lam taal day bu sottee ñëpp xëcc kon sëñ bu mag bi loolu la wax mu leen kin lam taal day bu sottee ñëpp xëcc waaw kon ñoom kon ñoom ñoom umpan umpan umpanti wuñu woon moo tax bi fi nekkee nag di liggéey ànd ak kooki taalibeem euh, taseeg sëñ Fallou jamono di waaye lépp noonu la koy taxañ rek jox ci taalibe yu mag yi benn ne ko yottal sëriñ fàllu may tabax jumaa loolu la noonu la fi noonu la fi nekkee woon euh, sanc bi nag ni ma la ko waxee jóge na ci yéen dal na Mbàkke bi mu dalee fi bokkam yëngu bi rëy ba ëpp mu xam ne ci bokkam la daloon mu soog a ñëw fàkk fàkkal bopp fii da sanc ko fàkk dal ci nekk fekki ta nekk fekki taalibeem ba ay mbokkam yépp dellu fa baxaat ñëw fekk fekk saat fekk saat ko bi muy tubaab bu bëggal gii tubaab bu bëggal gii nag li ko indi moom sëñ Abdou ko indi ndax village bi bu bëggal la tuddoon bu mooy gis na béb gi ci béb gi ci pénc mi béb googu moom mooy bu moom loolu moo tax ñu tuddewoon ko bu bëggal jamono yi ñuy wut village bi nag village bi xawoon na jafe xawata muy jamono yi sëñ Abdou bañ demee ba ñu wutal village bi moo joxe ndigalal Touba Boboguel ñu defal ñu vil defal ñu village bi loolu moo indi village bi Touba Boboguel ci laar moo ko def dëkk bi de mu ngi avancé ndax euh, avance bi sëñ saaliwu sëñ saaliwu moo ko natt moo ko nattal boppam def ci xaalisam lépp nattal ko boppam moom sëñ saaliwu dellu wal ku fekk na ma yow village bi sax mu dellu wal bitiku dénkaan ma dëkk bi ne ma yow waaw te loolu it sëñ Maodo Jaxate mu ñëw bu fi man na ma sëñ Saaliw moomu boole yow nee na nga téye dëkk bi kon noonu moom laa moom laa moom laa téye dëkk léegi nag avancement wu dëkk booba ndox mi manqué woon na lool yàgg nañoo ak ñàkk ndox waaye bi fi ndox mi ñëw daf ñoo bett lool ndax sëñ Cheikh Saaliw sëñ sëñ Saaliw ci boppam moo xëy xëy ne boo bëggal nañ ma fa yóbbul ndox ndox mañ fa yóbbu duma ko defloo kenn sa xaalis sa bopp laa koy def duma ko defloo gouvernement duma duma ko defloo communauté la moo jëndi téewam fa yëgaskatam andi ko muy ndox mu njëkk am muy téewa yi ñu am ndox natt bi it moo ko nattal boppam fayal ko fayal ko xaalisam gannaaw loolu it ah, poste santé bii fi ne moo it yàgg yàggoon nañu wut poste santé waaye Touba Touba biñ tàmbali poste santé yeeg lañ daal di ñëw yàlla def ndox mi itam yàlla def ko uh, waa wës bi ju bokk ko waa saa bu tëkki am fora petit forage yu ndaw yu muy maye ñu ñu ñu ma ci ñu muy may mu nekk nii ci penku ndax uh, dafa def nag espèce yi teen ndox mi bari na lool waaye ndox daanaka teen la munta daj dëkk bi te dëkk bi ak ndox moo tax Euh, waaye sëñ bas ci boppam moom itam gannaaw bi mu yëgee bu bëggal gi xam ñàkk ndox mi ak ni mu demee moom itam yàlla dogal bi ñuy def forage yi ci màggal gi mu dellu diglaat ne nañ bu bëggal nañ fa def forage ba forage ba ñëga ne gas kon euh, avancement yi mu ngi waaw courant bi moom itam wax dëgg yàlla alaaji baaraam sëñ Fallu wax na ci euh, sëñ Sidi Muxtaar wax na ci sëñ Sidi moom ba nga xam ne yàlla dogal na li fi jot ñëw ñëw fi forage bi it nag biñ koy fii def ñi ngi sant maire Abdoulaye Ka bu baax ndax keroog biñ ñëwee di ko tàmbali si moom ak sëñ Moustapha Moussa ñoom ñoom ci ci commune bi ci lañ jóge ànd ak waa OFOR ñu ñëw xamle si ne dañuy def si forage bi kon commune bi ñu ngi doxe jéego seen moom ñu leen di sant bu baax yoon wi nag ñu ngi koy gistaane bu baax a baax xam naa bu muy ñëwit waa kër sëñ Tuubaa yi ñuy xëy xëy xam ne jekk na fi ñu fàkkal ñu ko waaye nag ñu ngi koy diistaane ndax amutu wax dëgg yàlla amutu yoon te dëkk bu mag la te yelloo na ko ndax fajukaay bi rek jar na aw yoon mbooloo mi fi ne it aaje na ko te benn yoon wu wu nag nekk gu fi moom it ñu ngi koy ñaan nag bu baax